askan wi nga xam ne ñoo fa yeewoo ñoom nee ñu dañu leen a fàtte dafa mel ni maanaam bokkuñu ci réew mi amul lenn loo xam ne defal nañ leen ko ngir nag saafara leen jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy dund am na ñenn ñu yeewoo ca gox boobee nee nañu ñetti fan yoo xam ne maanaam gëmuñu ko bët ndax ndox mi nga xam ne maanaam moo leen génne seen kër yi ba tey ci biir journal bi nee na gox bi di yëmbal jàmm gën mbaawa sikambaawa caaro ya gox be woo nag maanaam sonn nañu ba maara détaal yi yéen a kaay gi di réew mi mi nga xam ne ay jamono nekkoon na fi premier ministre bu Sénégal wax na national bi nee na nag ñii nga xam ne ñoo fi nekk maanaam dañu ko arrêté loolee moo waral njombe gi am na ci ba tey ci biir journal bi nee na askan wi nga na nag ministre bi nga xam ne moom lañ dénk kaaraange réew mi di Antoine ni nag maanaam moo am inondation waaye nag bi xale yi baare nga xam ne maanaam mooy autoroute à péage bi Antoine Diome dafa dévier maanaam daal di teggi jaar fi nga xam ne mooy ci route nationale ba yéen a gi di Sud Quotidien ak Libération ak Vox Populi ak Walfadjri nee na en ndaw ñi nga xam ne ñoo dëkk ci banlieue bu Ndakaaru wane nañu seen naqar lool ci mbënd mi nga xam ne moo am ca banlieue bu Ndakaaru ba tey ci biir journal bi di L'As nee na plan Orsec bi jamono ji kaay yi daal dañu koy déclenché génn nañu toll ci vingt-sept milliards dardara ba tey inondation am na maanaam mbënd am na waaye nag ndox dañu ko soxla Omar Gueye nee na nag mbënd mii nga xamante ne gis ngeen ko Sénégal maanaam du ñu wax guleet ndax du lu bees Sénégal te nag ci biir àdduna bi yëpp bëri nay gox yoo xam ne day am inondation fu ci mel ne Allemagne ak Belgique fan yi nga xam ne moom la ñu génn gis ngeen la fa xew waaye nag état bu Sénégal ma ngi koy jéem a saafara yéen a kaay gii di lii ko di cee xëy dañu xibaar naan ñu en tout cas lu jëm ci wàllum inondation yi am na ay milliards yi milliards yi xamante ni dugal nañ ko si waaye ba léegi ni France dali xëddee na yéen a di réew mi quotidien Abdoul Mbaye nee na inondation yi du gaaw a jóg ci Sénégal ndax priorité yi ci boppam la Macky Sall xamal te nag li nga xam ne moo jëm ci wàllum pompage loolee du solution bi Abdoul Mbaye neex tubaab nee na Sénégal problème urbanisme la ñu am te nag priorité yi Macky Sall ci bopp moo ko xamul xam nga ku xam priorité du jël un milliard di si jënd nag am Mercedes Abdoul Mbaye nee na ku xam priorité du jël soixante milliards ak fi Sénégal toll di si jënd li nga xam ne nag mooy ay avion priorité yi feneen la nekk en tout cas daal visite yi xam ne ministre de l'intérieur Antoine Diome ma koy def ci gox yi nga xam ne dafa am mbënd nag maanaam risque la de haute tension yéen a kaay gi de Le Quotidien xëy dañu xibaar naa ñu plan Orsec bi jamono ji kaay daanañu ko déclenché waaye nag dafa am loo xam ne daal jaaxal nañu lu toll ci mille milliards mille milliards yoo xam ne dugal nañ ko ci mbënd mi ci Sénégal fukkat ak juróom benn ba léegi ne waaye ba léegi daal saafara amu ca yéen a meroon na de meroon ba maara di tali song ñi nga xamante ni ñooy ay ministre ma ak ay DG ma wax leen na wax leen ma lu xew wax leen ma exactement situation bi yéen kaay gi de direct news na en tout cas ndaw ñi ni nga xam ne jamono ji moom la ñu mere Macky Sall war naa wax ak ndaw ñi Macky Sall war naa communiquer ak ndaw ñi ndax jamono ji maanaam ndaw ñi mer nañu lool lool lool yéen kaay gi la tribune nee na inondation yi nga xam ne am na ci Sénégal maanaam nag jur na nag embouteillage boo xam ne maara di tali yéen kaay gi de l'observateur nee na moo xamante ni mbir mu doy waar doy waar bu tiisa tiisa ndax nag am na ñenn ñoo xam ne nee nañu gis nañu benn liir koo xamante ni juróomi weer rek la ama maanaam nekk ci kaw ndox mi ndox mi moo ko génne seen nekk yéen a kaay gi di enquête xëy wax ci leneen lu jëm ci wàllu mbay mi ci Sénégal ak ñi nga xam na ñooy baykat yi baykat yi jamono ji nag dañoo tiit baykat yi tiit nañ ba maara détail yi ndax dañoo jàpp ne li nga xam ne moom la ñu jot bay soo muy tuule dafay yàqu ndax nag engrais amul engrais ci boppam doom ju góor la jamono ji koo gis ñi nga xam ne nag ñooy la ñu réew yéen a kaay gi di réew mi quotidien ñu xëy fekk fa Assane Samba nee na coalition bi nga xam ne ñoo ngi koy wax Ousmane Sonko Khalifa Sall Karim Wade coalition boobee nag maanaam bu ñu ko taxawalee loolee nag mën naa mën a jàmmarloo ak Macky Sall waaye nag lu mooy loolu amul kenn su ñoom koo xam ne bu beroo mën naa jàmmarloo ak waa benn bokk yaakaar te ñi nga xam ne jamono ji bëggatuñu Macky Sall bu ñu soñoona Ousmane Sonko Khalifa Sall ak Karim Wade daal di lëngoo lu jëm ci wàllum a a nekk la wër te mën a a